dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw wàllum xibaar ba tey jii rek ñu daal di addu ci lu ñu jot ni woote bi nga xamante ne nag bu takku boo xam ne maître Ngagne Demba Touré daal dina ko woote mu ngi sàkku nag ci ay naataangoom greffier rek ñu daal di tàmbali seen i service ginnaaw nag ñu bëri ñoo xamante ne jotoon nañ ne nag téye wala sax ñu jëlee leen foofee ba ñu doon protester rek ci luñ ko tëj ci kaso bi moom mi di Ngagne Demba Touré mi ngi sàkku ci ay noonam nag ku mel ni maître Tanor Dramé Diamé jeune la bu responsable parti Pastef depuis mu ngi ci kaso bi te ñu ngi sàkku ci ak nit ñu ko bën a bàyyee waaye tamit ngañ Demba Touré mi ngi woo travailleur de la justice maanaam ay ñoñam ñu delluwaat ci bureau yi fas yéene nag liggéey ngir rek lu nu mel lan moo tax rek nag mu def appel bi réponse la boo xamante ne maître Diamé euh, moom même journal bi di ñu xamal ne maître Touré di ngañ Demba Touré jot na recevoir nag ñu bëri ci sollicitation ci part détenu yi nga xamante ne moom la bokkal euh, kaso bi ci dossier bi nga xamante ne rek moom lañ ko daal tuumale ba tax na sax ñoom nee wala sax greffier yi loolee taxoon sax ñoom ñu tàmbaliwaat ab grève de grève illimité boo xamante ne daal du am njeexintal Ngagne Demba Touré nag jotoon nañ ko placé sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak ñaar ci wéeru février ginnaaw bañ koy toppee ci lu jëm ci association de malfaiteurs bu am ak koo xam ne dafa am ak rapport ak benn entreprise terroriste offense au chef de l'État ak lu bari loo xam ne daal teg na ko ci ndoddam ginnaaw ba mu dawee làqu ca Mali juróom benn juróom ñetti weer mu ñibbisi nag yàggul dara nag ñu daal di ko teg loxo moo de da tëj diggal ko ci kaso bi waaye nag mbébitam boobu ak lu mu doon yaakaar ndekete ba tey ji ñu ngi ko daal di tëggat lu doy waar moo am ci tribunal bu ndakaaru dañ ko taal def benn gaz moo fa daal di explosé nouvelle buy ju ñu jot léegi nii ci tribunal euh, palais de justice tribunal ba nag jamono ji nag mi ngi ci safara benn gaz moo fa daal di explosé moo indi lakk boobee euh, jamono ji nag bureau yi nga xamante ne mooy bureau casier yi yooyu yëpp nag daanaka ñu fa nekk dañoo tiit jaaxle ndaxte dafa communé safara bi nag doon du tàng lu lu déggu gendarmerie nag jot nañu évacuer képp koo xamante ni yaa ngi woon ci biir palais de justice bi laata rek ñuy daal di woo sapeur pompier ngir ñu mën a ñëw rek naka daal di fay safara boobu dinañ leen ko toppal di indi nag lu ñu mel ba tey ji jot nañ ko finde daal xam nañ ne gaz moo fa daal di exploser